Oui, servir les enfants, partager avec eux sur la télévision Futur Média avec ce nouveau format de votre émission La salle des profs réussir son examen. Oui, c'est possible et nous allons vous accompagner pour pour démarrer. Nous attendons avec les classes les élèves qui sont en classe de CM2, ils sont à la maison, j'imagine bien réveillés, confortablement assis, parce que d'habitude, les enfants se réveillent très, très tôt. Et pour Surtout vous servir, tonton inspecteur, tableau. Je vais aussi en euh, profiter pour rejoindre la chaise de l'élève et respecter la distanciation sociale. Euh, notre beaucoup. geste barrière, le Voilà. Et à tous les Bakelois qui me suivent, notamment à M. Dembélé depuis Bakel, les Moudérois. Mmh. Euh, les Moudérois, ce les gens qui, qui suivent, à l'inspecteur Alousseinou Sarr, donc euh, à Toubakel, à Kidira. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Voilà, ceci étant dit, on va continuer par rapport à ce qui se faisait l'autre l'autre jour. Mardi. Sur, mardi, sur euh, la résolution de problèmes, docteur Massamba, euh, qui est une chose très, très, très, très importante, surtout pour réussir cet examen. Car euh, en plus des ressources et des énoncés, les opérations, c'est pas moins de 60 points qui sont là-bas. C'est Voilà. Donc c'est une grosse cagnotte à prendre. Une grosse à Donc, l'exercice, avant de passer à la correction, on va retourner pour vous rafraîchir la mémoire parce que tout simplement, ça avait déjà été expliqué et explicité mardi passé. Donc aujourd'hui, l'énoncé du problème c'était ça les inspecteurs Samba Gaye et Cheikh Anta Koli de Madame Mané doivent aller à 8h30 à Ziguinchor pour un séminaire ou une réunion donc ce sont des voyageurs nous avons combien de voyageurs trois voyageurs qu'est-ce qu'ils vont aller faire une réunion où à Ziguinchor ils partent de Thiès de Thiès d'où ils partent à Ziguinchor il y a environ 400 kilomètres. C'est un voyage en aller et retour. Donc ils vont faire 400 à l'aller, 400 en retour, ce qui va faire évidemment 800 Et pour faire ces 400 km, la voiture fait du 8 litres pour chaque 100 km. 8 une fois, 100 une fois. 8 deux fois, 102 fois. 8 fois, 104 fois. Mais il y a une façon beaucoup plus rapide de calculer ça c'est la règle de 3. La règle de 3, vous le savez, c'est nous connaissons trois chiffres et on va rechercher un quatrième. Règle de 3. Donc de Thiès pour Ziguinchor, il y a environ 400 km et leur voiture consomme 8 litres au 100. Il faut bien compter 6 000 francs de péage pour l'autoroute jusqu'à Ziguinchor, 5 400 francs par personne pour le déjeuner. À Et autant pour le retour. que cela veut dire autant? La même chose. Autant. Le gasoil coûte 690 francs le Quel le prix du voyage aller-retour? Vous l'avez déjà fait, j'en suis sûr. même des élèves de CM1 qui ont dû essayer. Et pourquoi pas certains élèves de ce Parce que les questions ne sont pas liées. Il y a deux ou trois questions indépendantes. Ce qui va nous amener, avant d'aller à la solution, à revenir sur le schéma de résolution. Le prix du voyage aller et retour. On ne peut pas directement calculer le prix du voyage aller et retour si on n'a pas le prix du voyage à l'aller. On ne peut pas avoir le prix de l'essence à l'aller et au retour si on n'a pas la question intermédiaire par rapport au prix de l'essence total, c'est-à-dire le prix de l'essence à l'aller. La même chose pour le péage, nous avons payé 6 000 francs à l'aller, on va donc payer francs au retour. Pour le prix des repas aussi, c'est la même chose. Il nous faudra voir le nombre de voyageurs, ils sont trois, et pour ces trois-là, chacun va consommer la même somme, mais il faudra multiplier par deux parce que il déjeune à l'aller, il déjeune aussi à retour. On va voir si vous avez trouvé, et j'en suis sûr, vous avez trouvé, parce que tout simplement, vous avez réalisé correctement votre schéma et vous avez pu voir les interactions et les relations entre les données. La distance entre Thiès et Ziguinchor 400 fois 2 parce que tout simplement c'est la distance entre Thiès et Ziguinchor par rapport à ce voyage à l'aller et au retour mais la distance Ziguinchor-Thiès tout simplement c'est environ 400 kilomètres mais pour votre énoncé il faudra multiplier par 2 ce que vous avez fait et c'est très bien la consommation de gasoil aller et retour pour 8 litres on fait cent kilomètres règle de trois pour huit litres vous faites cent kilomètres et maintenant pour quatre cents vous allez faire combien huit litres fois quatre divisé par cent on va y revenir tout de suite avec euh, le schéma et vous trouvez deux vous multipliez par deux ça vous fait soixante-quatre soixante-quatre litres combien coûte un litre de gasoil on avait dit cent quatre vingt vous prenez le prix d'un litre prix de l'unité fois nombre d'unités. Vous vous rappelez bien. le prix d'un litre de gasoil? C'est 690. Ils ont acheté combien de litres à l'aller comme au retour? 64 litres. Donc, prix d'un litre de gasoil multiplié par nombre de litres de gasoil, ce qui nous fait 276 000 francs. Le prix des repas, 5400 fois 3. mais attention Matar si tu te limites seulement à 5400 fois 3 tu calcules seulement le prix des repas pour le voyage aller alors qu'on a dit autant à l'aller comme au retour donc il faudra multiplier par deux soit vous le faites en une seule opération comme ça ou bien vous faites deux opérations distinctes ce qui importe c'est d'arriver à 32 400 le prix du péage 6 000 francs fois 2 égale 12 000 francs. Maintenant, quel est maintenant le prix total du prix Le prix total du voyage, aller et retour. Et c'était la question finale. Vous voyez donc, avant d'arriver à cette question finale, il y a des questions intermédiaires. Pour chaque énoncé, il faudrait bien voir si la question finale n'inclut pas des questions intermédiaires. ce qui nous amène au prix total du voyage à 320 400 francs. Félicitations à celles et ceux qui ont trouvé. Et qui présentement et... à la maison. j'imagine, <laughs> j'imagine. Euh, bon, si ça se passe partout comme chez Docteur Massamba, je suis sûr que ça jubile, parce que je suis allé le rendre visite. Mais vraiment, celles et ceux du des classes moyennes bon. des classes moyennes beaucoup d'engagement. <laughs> mais ñu dara daal ñoom maam loolu ñooñu mayewuñu dara. <laughs> donc une belle concurrence. huit litres pour faire cent kilomètres d'accord combien de litres me faudra-t-il pour faire quatre cents km. Et là, on vous l'avait dit, les mêmes unités sont toujours ensemble. Ici, on a litre. Là aussi, nous avons litre. Et pour ne pas fausser la règle de 3, souvent, si c'était une opération, le trait là voudrait dire que nous sommes en train de diviser. Hmm. Mais dans la règle de 3, on fait le contraire. Au lieu de diviser en bas, nous multiplions ici et nous divisons en haut. Si vous faites, par exemple, la division ici, vous êtes à huit C'est bon On va reprendre le tout. La voiture consomme 8 litres pour faire 100 km. Si vous voulez aussi, vous faites 100 km pour faire 8 litres. C'est la même chose. Et maintenant, pour faire 400 km, il faudra combien de litres C'est bon Vous divisez et vous multipliez ici. Quand vous faites 100, 8 par, divisé par vous êtes à 0,08 multiplié par 400 multiplié par 400 pardon 400 je change de couleur 4 fois 8 32 vous avez scellé deux zéros vous comptez 1 2 vous placez la virgule vous êtes à 32 et c'est ces 32 là la vous allez multiplier par 2 tubaabu fer 64 litres. multiplié par deux parce que le voyage le voyage c'est aller pour finir on vous dit toujours dans la question finale un verger à 210 mètres, deux un verger à 210 mètres de périmètre. Sa longueur, sa longueur surpasse sa largeur, sa largeur de 17 mètres. La question finale, quelle est sa valeur à raison de mille francs le mètre carré à raison de vingt mille francs le mètre carré à raison de vingt mille francs le mètre carré regardez bien un verger à 210 mètres de périmètre. Sa longueur surpasse sa largeur de 17 mètres. Quelle est sa valeur à raison de 20 000 francs le mètre carré Identification des données. 210 mètres. Que représente 210 mètres C'est l'énoncé qui nous le dit. 210 mètres représente le périmètre. C'est le périmètre. On est d'accord Sa longueur surpasse sa largeur de 17 mètres. Que représente 17 C'est la c'est ce que, ou c'est la différence, ou bien vous pouvez dire, c'est ce que la longueur a de plus que la largeur. Mais on va appeler ça la différence, pour vous renvoyer au partage inégaux. Quelle est sa valeur à raison de 20 mille francs le mètre carré mille 000 francs représente quoi ici vingt mille francs représente le prix d'un mètre carré. Pourquoi d'un? Parce que c'est ça qui nous le dit, le le prix d'un mètre carré. Donc, j'ai le prix de l'unité. Qu'est-ce qui me manque ici? Comme tout à l'heure, il me manque le nombre le nombre d'unités. Et quel sera le nombre d'unités ici le nombre d'unités va renvoyer à la surface donc il me faut nécessairement avoir la surface pour pouvoir calculer la valeur totale de ce champ et où se trouve la surface si vous voulez préparer du riz au poisson et que vous alliez dans la forêt où il n'y a pas de marché ça va très difficile La surface se trouve ou Au niveau des dimensions. Parce que tout simplement, votre règle vous dit que surface du rectangle égale longueur fois largeur. Est-ce que j'ai la longueur Est-ce que j'ai la largeur Non. Où se trouve la longueur et la largeur Il faut aller les chercher ici. Au niveau de demi-périmètre. Demi-périmètre égale largeur est longueur. Et pour avoir mon demi-périmètre, je dois diviser le périmètre par 2. Donc vous voyez, pour n'importe quel annoncé qu'on vous donne, n'ayez pas peur. Parce que si vous n'avez pas peur et que vous connaissez ça, une fois que vous avez peur, il ne restera que ça. Donc ce pas parce que l'examen est difficile que vous faussez votre problème, mais c'est parce que vous avez souvent peur. N'ayez pas peur. Considérez le surveillant qui vient comme le maître du CM2. Parce que lui aussi, c'est ailleurs avec d'autres élèves. D'accord Donc, en attendant que les élèves du jour me posent des questions sur ça, j'arrête ici, parce que je sais que vous avez compris. <laughs> En semaine, euh, est-ce qu'il y a des choses... Je pense qu'ils ont la possibilité de, de, faire ça à la maison. Bien sûr. De résoudre cet énoncé-là à la maison. Oui, mm. et, et, et, ils peuvent tout de suite, même avant même la, la fin de l'émission, que je regagne, parce qu'il <laughs> y a des élèves en ce moment pour qui un énoncé pareil est presque un calcul mental. Pour les élèves qui vont, par exemple, euh, faire le prytanée militaire, ils ont déjà fini. Maintenant, ça, c'est pour euh, les Matar Gueye et les Dames Diaw de Thiès, là. Nous <laughs> Merci beaucoup, inspecteur. Je pense que vous êtes euh, un tout petit peu revenu sur le premier cours, la première présentation de mardi passé. Mm-hmm. Donc, à savoir euh, lire, bien lire l'énoncé, souligner euh, les données, mais aussi faire attention au schéma. Mm-hmm. le mot, c'est pas le schéma de présentation, c'est euh, le si. schéma de décomposition. Schéma. Oui. Nous, on peut dire déductogramme, organigramme, mhm. mais c'est, c'est, ici, on aura ici e longueur, longueur et largeur. Et puisque ça c'est la longueur, on aura ici une petite différence qui sera 17 mètres. Ça, M. Diène l'avait déjà fait. Diène l'avait déjà fait. Voilà, donc euh, donc c'est bon. Ils ont, bien, bien compris maintenant. Et maintenant, quand vous enlevez ça, vous pourrez diviser par deux. Mm. Quand vous divisez par 2, vous avez deux fois la largeur. Et vous ajoutez 17 pour avoir la longueur et le, et le tour au jeu pour le reste. Toujours. D'accord. Parce que sans le demi-périmètre, on ne peut pas avoir les dimensions. Parce que le nec, faut mon C'est-à-dire Longueur et largeur se trouvent chez les dimensions. <laughs> donc pour trouver longueur et largeur il faut aller vers demi-périmètre parce que demi-périmètre c'est longueur et largeur et pour avoir demi-périmètre il faut périmètre divisé par deux car le demi-périmètre comme son nom l'indique c'est la moitié du périmètre donc attention à la question finale parce qu'elle peut entraîner des questions intermédiaires voilà vous voyez il y a une seule question mais si on voulait résoudre ce problème il y a au minimum quatre opérations alors que c'est un tout petit énoncé. Oui. Mm -hmm. donc beaucoup de vigilance. beaucoup de vigilance il y a même des problèmes on pourrait leur dire quelle est la valeur de ce de ce champ à raison de trente mille francs l'art ou trente mille francs l'hectare et là il on on ajoute encore il faudrait calculer sauf que nous sommes dans les mesures de surface Donc n'oubliez pas, pour chaque, il y a 2 carrés au lieu de 1. Et on aura ici hectare, ar, centiare. Vous voyez Donc, comme l'a dit Tata Souben, faites attention à la question finale, car une question finale, il y a toujours derrière deux ou trois questions intermédiaires. Merci beaucoup, tonton inspecteur.